wa radiyallahu an cheikhina ahmad atiyaani wa saairi muqaddami wa xulafaai ridan yaumul jamia wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu gannaaw ñu santee borom bi subhaanahu wa taala ñaan ko mu wutuñu jullil ñu ci yonent yàlla muhammadin wa sallam ñaanal saxaaba yi ak ñi topp njubam bu ñaanal ngërëm suñu wasila ci yàlla cheikh seydi ahmed tiyaani radiallahu anhu ak mboolem muqaddamim xulafaa um yëpp ñuy wax mbokki jullit yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, ñu ngi nekkoon ci téere bu barkeel bi ñuy wax kitaabu rimaaxu xizbi rahim ala nuxuuri xizbi rajim muy téere bu màgg bu cheikh alxaaji omar al fuuti radiallahu anhu def nga xam ne xam-xam bi sell na rafet na boobu ba tey nag sëriñ bi di yaatal ci diggante njariñ li war a dox ci diggante taalibi ak sëriñam ak comportement yi war a xëcce loolu ma taalibi bi war ko jariñoo tey nag mu xaw a génne foofu tuuti waaye itam xam-xam bu sell lay jàngale mu mel ni dafa bëgg a def brassage nag ci tariqa cheikh na ahmed tiyaani bi nga xam moo ko waroon a tax a jug euh, muy wax ne ñaari yoon rek ñoo jëm ci yàlla yoon boo xam ne kashfu la am da ngay am fatxu di gis mbir yi ni mu demee ak boo xam ne ashukru rek la wal mahabba mooy nga bëgg a nekk ci système bi rek di jaamu yàlla paisiblement doom am kashfu doo gis mais sa dund dara du ci yàqu fekk waliyu nga boo dee dem àjjana boobu nag moo gën a noppale ndax yële risques yi dafa bari moo tax mu ne alfaslu al mufi al muy vingtième chapitre bi fi taxdirihim an qasdi al kushufaati al kawniyati wal karaamaati al ayniyati wa iclaamihim anna tariqatana haadihi tariqatu shukrin shukrin wa mahabbatin wa ahlu haada laa yashtagiluuna bittasawufi ila maa yashtagilu ila maa yushgilu an illahi taala wala yaltafituuna ila alkushufaati alkawniyati wala ila alkaramaati alciyaaniyati fali ajli kawnihim maxbuubiina laa yaxsulu lahum minhu shay'an naadiran bal lilmaxbubuuna minhum laa yaxsulu lahum ala cheyin min dalika albatta li allaa yarkanuu ilayhi fa yajidu cheytaanu sabilan ila ixwaihim wa idlalihim fa yurihim min alabatili maa yakunu istizrajan lahum kama yaqacu likathirin miman rakana ila dalika ila dalika fa dalla wa adalla wa halaka wa ahlaka nacuudu billahi min alxusraani xatta ida araada allahu taala an yaftaxa alayhim bi fadlihi yaftaxu ala shaxsin min gayri shucuurin fatxan yaxsulu bihi ala sacaadati daarayni jacalana allahu minhum amin fa aqulu wa billahi tawfiq wa huwa alhaadi bi manni ila sawaai tariq mu ngi mel ni turu fasl bi chapitre bi gudd na torop waaye wax ji moo composé woon noonu chapitre vingt sëriñ bi nee na damay avertir nit ñi ne suñ tariqa bi mu ngi koy doog a tudd nag suñ tariqa bii di tariqa tijaaniya doonul tariqa boo xam ne waa tariqa bi dañuy yittewoo mbiru kashfu ak ay karama ak ay kéemaan ay miracle entre guillemets parce que yooyu magiciens yi ñu ngi koy def wax la luy am suba wala dina taw ak du taw ak yu kenn xamul bu dul dëgg itam ñu ngi koy def kon di gis les invisibles wala di def ay miracle loolu comme ñi dul jullit ñu ngi koy sax def kon tariqa tijaaniya du attardé ci yooyu Cheikh ne kon maa ngi avertir ñi bëgg jël tariqa bi wala doon ci taalibe ñu ne ay tiijaan lañu ñu xam ne ñun suñ tariqa doonul tariqa kéemaan ak ay luxus ak ay yu kenn xamul mu mel ni ku dàq dara dinga saxal dara waaw kon tariqa bi tariqa lan la mu ne tariqa reconnaissance la ak amur vers Dieu reconnaissance vers Dieu amour mu ne moo tax d'ailleurs waa tariqa bi doo gis mukk ci ñoom kuy yittewoo ay mbiru kashfoog lii boo ko amee boo ko defee di nga am lii lii boo ko defee dinga am lii ak ay karaama di wane ay kéemaan ndax dayer tariqa bi sax ku ñu xam ci yow ngay feeñal karaama day wàcc sa daraja ci bëtu nit ñi maanaam tariqa bi bépp muqaddam bu ñu xamoon ngay def ay kéemaan sa moroomi muqaddam yi dangay ngay mujje dañ lay sous-estimer xam ne vraiment yow soriwoo euh, moo tax lan moo jur loolu Cheikh Omar ne nekk giñ nekk ay soppee yàlla moo tax daanaka sax yàlla ci mbaaxam du leen may kashfu nee na c'est très rare nga gis ci tariqa tijaaniya tijaan piir bu am kashfu di gis c'est très rare presque sax ñi mat dëgg-dëgg kenn du leen ubbil moom dara loolooy waral nga gis euh, maanaam képp koo gis muy def ay karaama ci tariqa bi signe de faiblesse am lay wane parce que doyadi gi mu doyadi tax na faw mu utlu ko animé tuuti pour mu bégal ci boppam bégal ci ay taalibeem mais mais gars yi piir du ñu am dara dara ci fatxu li tax cheikh di leen tëje noonu mooy day bañ seytaane am ci ñoom access euh, accessibilité ba beew loo leen gis loo leen seen bopp ndax dafa bari ñoo xam ne keroog bañ amee fatxu la ñu jombale seen bopp toog maanaan wës ba xam nga fatxu boobu du fat xalqu la tëj euh, au lieu ko ouverture mais fermeture la mujj nekk ci yow loolu moo tax euh, cheikh cheikhu tiyaan yi bañ seetaane utal leen bunta ndax bari na koo xam ne bu say teraanga baree rek nga jombale sa bopp loo doon def doo demati gàmm ga doo demati conférence ba doo demati jàkk ja doo julleeti euh, yu bari daal doo ko def ngir ëppale nga ko sa bopp boobaa nag à long dangay ngay réer ba pare réeral ñi nga àndal alku alak ñi nga àndal yàlla ñu ci yàlla musal moo tax tariqa bi daal àndal ak masse sociale bi rek waaye bul beru mukk di wane ne may lii wala am na lii wala xam naa lii euh, nee na moo tax ñàkk googu ñu ñàkk favoriser mbiru kashfu gisagoo kenn kuy jël werd ñu chartal la ci ne boo demee dinga gis nangam ak nangam wala yow daal dañ naan boo ko bàyyee ci ba ba ngay dee waaye kenn sartulu na ci danga gis lii di nga gis lii léegi nag boo sellalee sa pas-pas Cheikh Omar nee na ba yàlla bëgg la ubbil boppam nee na buy ñëw subitement lay ñëw maanaam képp kuy gis sax ci tariqa bi yow daanaka mënoo remonter ba xam ban date nga commencé gis day ñëw nii rek progressivement ngay génte léeg-léeg léeg-léeg ngay gis dara léeg-léeg ñu la koy wax ba mu mujj doon lu naturel moo tax doo gis kenn ku feddi géew taxaw ne man maftu alayhi laa wala borom kashfu laa tax nga am benn privilège boo teg sa bopp walis tijaan yi déedéet da ngay nekkat seen biir rek parce que loolu lu naturel lay doon ci yow ba xëy na bu dee dina am ñu mu yéem itam yow du la yéem parce que lu naturel la yaa ngi dund ak moom euh, loolu defe naa moom may tariqa tijaan yi stabilité bi xalifa bi boo demee ci moom danaan laan taalibe la muqaddam bi nga ne mooy sa sëriñ boo ñëwee mu ne ñun taalibe yi yow taalibe bi boo toogee sa moroomu taalibe ñu ne ñun taalibe yi lañ kon nga gis ne tariqa bu vraiment modeste fa la fekk baax or que nag bu doon ku jël werd balaa at ñu ubbi la mais da ngay jàmbale sa bopp yu bari parce que da nga naan ah, man ama qualité de looloo tax euh, kon tariqa bi daal tax tariqa reconnaissance la ak amour mais du tariqa ay kéemaan loolu daal sëriñ bi bëgg a tuddee fasl bi defe naa fasl bi rek doyoon na sax tur wi rek doyoon na xam-xam qaala fi lwasaaya alqudsiya wa yanbagi an yakuna almurid الذاكر صادقا يخلص بهمته نفسه من التعلقات بالكائنات والميل إلى المشتهيات والمستلذات الذي هي المعبودات الباطلة wa min al mayli ila al kushufaati al kawniyati wal karamaati al iyaaniyati fala taa'ila taxtaha wa yatlubu al xaqa waxdahu wa yunaziha talabahu min al majzi bi hawa nafsi fa inna al mayla ila al kushufaati al kawniyati wal karamaati min jumlati hawa nafs wa hawaaha wa man iltafata ilayha wa kaana maqsaduhu wa matmaxu nadrihi fi dikrihi tilka fa huwa mudrajun fi ma bayna al mamkuuriin bal wa in waqacat bila talabin yuxaafu alayhi min al istidraaj qaala alkibaaru ida daxala alsaaliku fi bustaanin wa qaala tuyuuru ashjaarin dalika albustaan bi alsinatihim assalaamu alayka ya waliy allah fa in lam yuftin bi annahu mukira bihi faqad mukira bih wa huwa lam yashcur wa jamicu almurshidina nafaru almuridina min almayli ila alkaraamaati alciyaaniyati wa qaaluu innaha xaydu rijal lii wax dëgg yàlla doy na yar Cheikh Omar pour justifier ne tariqa tijaaniya bii ñu tënku du tariqa kiyemaan dafa mel ni nag xale yi lu bari déggatuñu jàngale yi ndax mënuñu nangu nga nekk tijaan soxla benn dix mille francs te amoo ko nga ne man est-ce que sama kurus wér na mënuñu nangu nga nekk Tidiane am ay situation yu bloqué te débloqué wul waaw mais Tidiane avant nga koy nekk nit nga nit dafa am ay natura euh, euh, yu naturel yu koy dal mu ne pour confirmer loolu comme moom li mu baaxoo def turu onwaan bu ko defee après recherche lay def benn téere bu ñuy wax wasaayal qudsiya dafa wax ne jaadu na ci murit bi nga xam ne nii dafa namm boroomam te dëggu mu sellal boppam bu dee yàlla nga bëgg nga sellal sa bopp filtre sa bakkan ba nga xam ne lépp lu jëm ci mbiru àdduna ak dem ci ay bànneex ak yu ñuy bége ci mboolem xeetu jaamu yàlla yi nga xam ne neen la nga sorel ko ci sa bopp maanaam lépp loo xam ne ni confort passionnel lay doon euh, xam nga ki werd tur yoo xam ne nee na da koy may xaalis loolu muy def est-ce que yàlla tax mu ko def déedéet te généralement xaalis ba muy weer de même bu ñëwoon itam yéenew ci tabax jàkk kon lu dellu ci bakkanam rek la ci jublu mu ngi tudd li gën a sell pour service ci li gën a doyadi te muy bakkan war na yar itam boppam ba nga xam ne li muy jaamu yàlla du ci jublu pour am kashfu wala mu man di def ay miracle jekki-jekki naawloo picc bi jekki-jekki def kiimaan même yonent yi yàlla jaarale woon ci seeni loxo kiimaan du ñoom ñoo ko sàkku yonent yàlla Moussa ku ne xam ne ne yàlla yónni na ko ay at euh, xamul na dina jël jël bantam boobu dóor ko ci géej gi d'ailleurs moom bi mu ñëwee ba ci géej gi dafa ne yàlla xaw ma lu may def est-ce que kon c'était intentionnel déedéet moom gis nga dafa ñëw ba tiit ba mbokkam yi naan kan ñi mu àndal yaa lii yëpp yaa ñu ko teg commencé di koy yedd yàlla wax ko ne kon dóoral yat bi kon nitu yàlla doo jug pour wuti ji ay karaama dalay dab rek léegi nag moo tax nit warul jaamu yàlla pour am ay kéemaan yoo xam ne nii amul benn amul bopp amul genn ndax loolu généralement nit ku bëgg samp boppam moo koy def bëgg a wan nit ñi ne tu es saint wala yu mel noonu bu ko defee nit buur sellalee boppam euh, yow mel noonu dina ci sori soril boppam ndax nee na di jublu ci ay kashfu ak ay kéemaan daanaka jëfu bakkan la te ku bëgg yegg ci yàlla bakkan ngay di ba pare euh, ak itam bëgg a servir sa bakkan nee na képp koo xam ne yaa ngi gestu ci yu mel noonu euh, waaw tur wii de nee nañ boo ko werdee après yàlla dina la may pouvoir nga mën a def lii ak lii xam nga wax dëgg yàlla tuddoo yàlla yow yow pouvoir yooyu ngay wut finalement doo am yàlla doo am pouvoir yi xam nga yow perte nga ñaari yoon bari na ko naan ko naan yi ku koy werd da am xaalis fekk tur waa ko teree am xaalis ndax temps bi muy werd tour yi bu jugoon liggéey ji moom dina am xaalis ko defee euh, loolu wa makkaana maqsudu wa matxu nadari fi tilka foofu mudrajun fii ma moom mamkurina nee na bu ko defee nga nekk ci retard bu metti ndax yaa ngi def li nit ñi def pour dem ci yàlla te yow demoo mu ngi mel ni ku dugg ci oto bu pan yàlla bu mu nekk ci digg péage bi yaa ngi mel ni yaa ci biir biir bi yaa ngi mel ni kuy dem ndax nekk nga fi ñuy demee mais yow demo parce que oto bi dafa pan nee na loolu nag ci lay yàlla di nattoo nax maanaam ci la seetaane di naxi ñi jëm ci yàlla ba tardal leen ci yoon wi nga nekk ci ndeysaan rek naan affaire yi dina ñëw te jaamoo yàlla ba tey doo xëy xëy dugg a bàmmeel ñu laaj la loo fi indi ngay naka nakal loolu yàlla ñu ci yàlla musal te nga gis ne kon karaama boo ko amagul gis nga ni mu doonee xijaab ndax bu fekkee moom nga moo la tax a jug yow amagoo yàlla bu fekkee am nga këyitam yaa ngi ci risque ndax man dara ba pare te defoo ko ñi ko man bariwul nee na loolu moo tax euh, lenn ci borom xam-xam yi di wax ne ku dugg ci benn jardin bu nga duggee ci jardin bi ay picc ñëw dar la picc yi naaw foofu ñëw ne la asalaamu aleyka yaa waliyallah ñu ngi lay nuyu yow waliyub yàlla bi là automatiquement ñoom wax nañ nga dégg te loolu rek miracle la ba pare ñoom ñoo confirmé ne waliyu nga xam nga loolu kuñ ko wax boo santee njaay fecc moo lay dese ne ah man kay àgg naa euh, nitu yàlla yi nee nañ boo jàppewul na loolu piege buñ la tendre nga tendre la nga jàpp ne yow yaa mat tax nga àgg foofu ba picc yi di wax ak yow nan laan wëliyu nga nee na xamal ne yow kon dugg nga ci piège bi maanaam bari na kéemaan yu lay dal ci gënt yu rafet yooyu gént wala nitu yàlla ñëw ci yow wax la yenn wax yi nga jàppane yaa toll foofu fekk na piège la ñuy xam ndax loolu di nga ko mën a dékk wala déet looloo tax ñu wax ne annaha xaydu rijal maanaam mbërëg la ci góor ñi ku ne xam na ne mbërëg mbërëg tabaarakallahu euh, neexu la neexu la yëgle jigéen bi nga xam ne dafa indisposé gis ay menstruelam defe naa du dem ca pénc ma naan dama gis baax noonu mu koy nëbbee nitu yàlla yi noonu la ñuy nëbbee karaama ndax jàpp ne ay menstruel la ci ñoom maanaam li ñu bëgg a wax mooy jigéen maanaam jigéen ju ne am na mbax daal kon yéemewul wëli bu ne war na mën a am karaama mais du du kéemaan maanaam toog di ko wanewaat sax moo mujj doon kéemaan ci ñoom moom la Seydi Haj Malik radiallahu anhu way wax ji ne inna al karamati xaydun li rijaali fala tudif ila an nafsi inna al wasfa lillah ndax ki wane karaama li mu bëgg a wane daal ci guddi gàtt mooy duma seen morom te kenn rek moo dul moroomu kenn muy yàlla subhanahu wa taala nee nañ wax nañ abi zeydin nekk diwde wa qiila li abi zeydin eh, abi yazid fulaan yamshi fi laylatin ila makka fa qaala cheytaanu yamsi fi si saatin min almashriqi ila almagrib eh, fi laanatillahi taala wa qiila lahu fulaan yamshi ala alma fa qaala altayru yatiru fi lhawa walsamaku yamiru ala almaa wa qaala sahlu ibnu abdullahi akramu alkaramati an tubdila an tubaddila xulqan madmuman min axlaaqika wa qaala zaydu caabidin alxawaafi fi lwasaaya wala yadxulu alxalwata li qasdi kashfin kawniy aw taxsili karamatin ciyaaniya fa inna man daxala alxalwata ala hadihi alamaani wala yuraaci shart alixlaas yatasarrafu fihi alcheytaan wa yalcabu bihi wa yatasaxaru bihi wa yurihi alasyaa albaatina bisurati alxaqi wa qaala daxala waaxidu min alasxaabi fi xuraasaan alxalwa bila idnin wa bila waqtin fa jaa ilayhi alcheytaan fi surati alxadir wa qaala lahu aturidu an taxsula laka alculum alluduniya qaala naam wa kaana mailan ila an yatakallam bilmacaarifi ala jarayaani lisaan fa qaala lahu iftax faaka fa fataxa faahu fa rama sheytaanu bazaaqahu fi fiihi summa bacda dalika sannafa kitaaban mushtamilan ala abwaabin min almacaarifi falamma wasala ila almulaaqaati curida ala ma sannafa وحكي واقعته فقل فقلت يا مسكين ذلك كان الشيطان قد جاء إليك في صورة الخضر ولعب بك وشغلك عن عن طاعة الله وذكر وذكره وذكره وذكره رح واغسل الكتاب وتب إلى الله تعالى من الاختيار والشيطان يجيء على صورة صالح كثيرا ولا يقدر على التمثل على التمثيل بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي ولا بصورة الشيخ إذا كان الشيخ تابعا للنبي مأذونا بالإرشاد من شيخه المأذون هكذا إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجيء كثيرا ala surati aljabbaarin almutafaqihati wa ala surati almubtadiin wa ala surati almaradati alkarihati karihati nadar asxaabi alqalaanisi fi sinni sitti wa sabci wa ila talaata cashar wa xamsata cashar wa ala surati almaakirin wa yajji ala surati alkalbi alaswad waddib wa ala surati nuuraaniyatin xamraa ka lawni ka durrati allawni wa baydaa aydan huwa bayna alxumrati walbayda lakin bayaadu lawnihi laysa bi saafin yattalicu ala alwajhi ala alsurcati wa yantafiu wa ala hadihi alsurati aydan yacrifuhu almuxtarizina almustaciidina almustaciiduuna billahi taala muxlisuuna lillahi sariqu fi mucaamalatihim maca allahi taala tilka surati yunabi'uhum alxaqu subxaanahu wa taala biwasitati sheykhihim wa taarifu eh, wa taarifuhu iyaahum wa kayfiyatun eh, bi daaxilihi wa waaqiatu wa mawaaqicu idlaalihi wa talbiisaatihi fi lxuduuri walgaybati bacda sixati raabitati wa laqad raaytuhu jaa ila suurati alxadri fi zaawiyati nuuruba alqissa eh, nitu yàlla yi li tax ñuy daw karaama Euh, abi yazid al bastami xam nitu yàlla bu mag la dafa mas wax dañ koo mas a wax ne ko soo diw de bu mag la mu laaj ñàkk ko wax ne ko fooleen ko teg ñu ne moom guddi gu jot day dox ba mag ci baatin teyul ardi lay def mu ne kon yéen dox ba màkk ngeen tuddee wilaaya mu ne waaw mu ne mais seytaane moo ko dàq ndax seytaane benn heure bu ne dina wër penkook sow maanaam seytaane dina wër golop terrestre bi yëpp ci peu de temps te moom mu ngi koy mane ci ci ci mere gu ko yàlla mer mere maanaam mu ngi ci rëbbum yàlla bi ko yàlla jox force boobu la mën ame force bi mu war a mën a wëre globe terrestre lan la bëgg a wax képp koo dégg muy def tayul ardi am na njibarkat yu la ko dax kon loolu justifié wul ne yow wëliyu nga te bari na kuy woote wëliyu yow boobu sax mën a hmm? xam nga jëkk gëmm rek dem Casamance kooku ko man jàmbaar nga de kon kii woote wilaay te amagul boobu na xaar ba am ka léegi tey xoola abi Yazid moom mu ngi wax ne waa ji nga xam ne am na pouvoir mystique bu ko may muy dem màkk ci guddi gu jot abi yazid ne loolu taxul nit doon wëliyu ndax iblis moom heure bi heure bi ci lay wër golob terrestre bi fu ne mu dem fa ñu ne ko waaw sëriñ diw moom xam naa kookoo gën a yéeme mu ne mu parce que moom day dox ci géej gi kooku moom day dox nii ci géej gi comme ni ngay doxee ci tali bi wala autoroute bi kooku wilaayam rëy na ab yazid na déet tey leen moom du mbindeef ñu ne waaw ñu ne mu ne ñu ñu mu ne ko mu ne leen waa waa waa waa picc mi nag picc mi waaw dañ ne ko dañ euh, maam jën jën moom fan la dëkk xam nga yow boo mënee di dox ci géej jën mi fa juddoo yaroo fa di fa na moom di fa fo léeg mu tëb sax ci air bi mel ni koy fo duggaat ci biir xanaa moo la ëpp endurance moom ci géej gi ñu ne ko mais diw sax moo gën a yéem yéeme moom waxuma sax géej gi mais day naaw ci air bi comme ni avion yi di doxe bu bu ko neexee euh, dem côté horizontal bu ko neexee ñëw ci suuf bu ko dem est ouest nu ko neex daal lay def ci air bi mu ne mais moom du mbindeef la ñu ne mu ne mais li ki ko gën a yéeme mooy ki ci juddoo yaroo ci ñu nekk kan mu ne mooy les oiseaux les oiseaux waxuma ne mën nañ naaw mais fa lañ juddoo ndax seen tàggu yaay yaay ji après dafa disparaître ñuy naaw ba tey lan la bëgg a wax mooy maanaam lépp loo def ba bëgg ci justifier ne waliyu laa yow am na ku la féete suuf ku man loolu ku ne xam na ne wala kat karam naa ba ni aadama ñii dugguñu ci picc yi dugguñu ci poisson yi dugguñu ci te ñoom yow mi leen gën gannaaw ñoo man loolu yow boo ko bëggee ndamoo xam foo jëm xam naa nit itam du ndamoo ne maa ngi dox ci suuf si ndax boo waa mu bokk xar yeeg nag yeeg bëy yi ak mboroomu nitam yi moo tax kenn du namooti ne maa ngi dox ci suuf si maa ngi dox ci air beeg maa dox ci géej gi rek ngay mën a wax te yooyu am na ko sa cousin yoo xam ne ni ñoo la fi jiitu euh, mel na ni moom lii muy wax nii ku xawoon wax ci jamono jii di nga indi problème bu rëy ndax ñi mënagul loolu ñooy ooti wilaay hmm? jël nañ ci sëhlu ibnu abdullah ak Tusari dafa wax ne euh, karaama bi nit ñi wër muy kéemaan pour def kéemaan nee na kéemaan bi gën rëy ci kéemaanu yàlla yi nee na du naaw ci jaww ji walla ngay plongé ci géej gi te labo wala yu mel noonu nee na kéemaan gi gën a rëy ci jullit mooy nga changé jikko bu bon bu nekkoon ci yow nga enlever ko ba mu set wicc nee na lu ko gën di kéemaan amul waxul dëgg xam nga nit koo xam ne naturellement dafa jalousie dafa jaloux nit koo xam ne dafa iñaan ba ñëpp xam ko muy yar boppam di reyanteeg boppam di reyanteeg boppam ba loolu daj loolu du kéemaan ah loolu kéemaan gu rëy la ku ko tuddeewul kéemaan jëm ka rek jéem ka bon gi nga bon xool gi ngay xool noo koy yaree ba mu dañ nay gi nga nay noonu soxor gi nga soxor noonu e, e, tabaarakallahu ñàkk xam-xam ignorance bi nekk ci yow ngay sonn di sonn ba jàng ba am xam-xam ba ku la mujj a gis sax bu la gisee ne waaw saay foo jaar loolu du kéemaan defe naa yooyu tuddee yooyu kéemaan moo gën yéeme ndax leneen loo fi defaat magicien bi après boo gisee télé mu def ko da rus dangay ngay mujj naan noo bokkul façon yi bokkul bari na bari na ku topp sa sëriñ ngir kéemaan bis boo déggatee ku def même kéemaan ba da nga naan niveau yi bokkul te fekk yooyu yëpp wax dëgg yàlla jaru ko woon. xam nga ñii di jat ay gaynde yaa gaynde yaa xaw ma salaali Muhammad wala xam nga yow bu fekkee yaa ngi yëm sa sëriñ ngir moo toogloo gaynde gi wala moo raamloo gaynde gi jatkat yooyu ñoom noo leen def jetkat yooyu boo dajeek ñoom ñu def même loolu nga doon revendiquer sa sëriñ xam nga faw da ngay wane ne bokkul te fekk gaynde gaynde la rek looloo tax kenn du nawee nit ci kéemaan ndax da ngay gis moom ku mu gën mu def kéemaan goog te doo xam noo koy def loolu moo tax nee na jikko bu bon bu nekkoon ci yow nga changé ko nee na moo gën di kéemaan yooyu gis nga zeynul abidin wax na moom ci wasaayaawam aw alxawaaf yi nee na bu kenn ne ay taalibeem bu fi kenn dugg xalwa ngir am kashfu te ba tey ni ñaa ngi bu fi kenn dugg xalwa ngir am ay miracle yu mu dégg na sëriñ diw mënoon na ko rek tax mu ne day dugg xalwa pour am loolu nee na xalwa ku dem ba koy dugg danga ko war a def ngir jëmmi yàlla kese ndax boo ci duggee ngir leneen ngir yeneen intention mën nga génne am ko nga foog ne yàllaa la ko jox fekk seetaane moo xool sa intention xam ne euh, kéemaan nga bëgg a am mu feeñu la ci xalwa bi nax la koo xam ne nag seetaane wër na la quinze ans mënul jot ci yow nga tëju xalwa mu xam ne lii moo tax nga tëju xalwa mais dala koy defal masalan ku toog ñàkk lool sonn lool ne man daal mag ñi buñ a jaaxle dañuy tëju dóor benn affaire rek yëpp dox léegi naa naa tëju ngir def lool seytaane yëg ko bàyyi la ba nga tëju mu indi la malet nga tëb ne lii lañ ma waxoon kay fii bii du ma nax mukk rekk argent sale lañ la jox fa ngay jaare alku ba faw loolu bari na muy dal bari na koo xam ne ku baax la woon waaye bi mu tëjoo xalwa ubbeeku ca la jaare yàqu ba ba faw te moom du ko yëg loolu moo tax ñooñu nga xam ne dañ leen yebaloon ci xuraasan benn waa joo xam ne nii dafa tëju fële ci xuraasan muy est de d'Iran euh, tëju xalwa mais amul ndigal loolu moo tax ñu bëgg bala nga tëju xalwa nga am sëriñ bu am ndigal mu jox la ndigal nga tëju bu boobaa lumière dina la sécuriser ba seytaane du la gaañ waa ji nag comme amul sëriñ bu mel noonu amul ndigal mu xëy rek tëju ne day def xalwa ci biir xalwa ba seytaane soppiku melokaanu xadir ñëw sol ni solu ni xadir ni mu déggee ne xadir noonu lay def nekk xam nga ma mu nekk déedéet mu nekk man maay imaam xadir alayhi salaam mu ngi sëriye nag moom seytaane te xam nga baaxul waaye ji jooy ñu ne mu nekk la la la mu ne oh xamoon naa ne dinaa am lii <coughs> xam naa seytaane bu ma noon ree dina ree jooy ne xamoon naa ne dinaa am lii mu ne ko lan nga bëgg mu ne ko man daal fatxu rek laa bëgg ak ubbeeku iblis ne ko mu ŋaaŋ mu tuuf lii ci euh, tabaarakallahu mu tufli ci gémmiñ gi ay tuflit loolu xam nga moo raw poison yi am ci àdduna bi yëpp bombe nucléaire sax looloo ko raw bi mu tuflee ci gémmiñam waa ji jekki-jekki rek mel ni dañ ko sol xam-xam mu commencé xam xam yu kenn xamul nu mu toll mais xam-xam yooyu maarifa la ko tudde moom léegi mu génne iblis da ko bés ni tey nag am nga xam-xam loo bëgg a bind rek bindal waa ji nag la génne rek comme xam-xam bee ngi tuuru ci dënn bi mu commencé rek uti ji feuille yu bari ak bic commencé di bind di bind yegg naa ci ba sàngam man may liw man may diw loolu lañ tuddee chataxaat di wax di tuuru di wax di tuuru di wax di tuuru ba bind ay téere yu bare baree baree bari te xamul sax fan la ko xam-xam bi jógee mu ne yàlla man xoola rek sama kashfu bi sama fat bi ndekete ci alkane la ne mais moom heureusement avant muy diffuser téere yi bi mu génnee nag dafa dem ci benn nitu yàlla en gis de sant yàlla euh, ne ko vraiment rëccuwuma ko sama xalwa bi lii sama xalwa bi lii kooku nekk ana yi nga bind mu xool bi mu xoolee sëriñ ba ree nekk nga ne kan nga gis ci xalwa bi mu nekk imam xadir alayhi salaam mu nekk gisoo xadir de bandi bu mag bi nga gis iblis moo jël melokaanu xadir noonu lim la fii yëpp boo boo ci deewee alkane lay doon ci mu ne ko lii mu wax yëpp yëpp musiba la xam nga looy def demal nga raxas li nga bindoon yëpp bu doon tey demal nga fot feuilles yi nga bindoon yëpp jamonoy comme ci der ngay bind ah da koy raxas waa ji ci la dem mu ne ko xanaa xamoo ne iblis mën naa soppaliku melow nitu yàlla yu baax yu bari kenn rek la mënula jël melokaanam mooy yonent yàlla muhammad yonent bi yàlla da ko sécuriser ba nga xam ne nii iblis mënul jël gabareem mënul jël melokaanam moo xam ngay nelaw wala nga yeewu képp moo tax ku ne la yonent bi laa gis bul werante yonent bi la gis de même itam ak sëriñ boo xam ne donn na yonent bi dëgg-dëgg donn comme Cheikh na Tiyaani sëñ Babacar Si Seydi Haj Malik Cheikh Omar Fouti ak mag ñooñu koo ci gis rek ñoom yonent bi nga gis dëgg dëgg dëgg góor gi Abdoulaye Niass Cheikh El Ibrahim Niass koo ci gis rek loolu la waaye bu dul loolu Iblis am na kàttanu jël melokaanu ku ko neex ku ko neex ci nu ko neexee lu dul ñiñ ko tere te ñiñ ko tere bariwuñu ay aqtaab rek lañ ay aqtaab lañu ak euh, mboolem an yi léeg iblis di nga tëju mu feeñoo la ci melokaanu borom xam-xam yu mag yi nga xam ne nii boroom xam-xamu fiq lañ nga ne ah man imam diw laa gis mufti la kooku kon lu mu wax dëgg la fekk déedéet ndax iblis mën naa jël melokaan yooyu euh, bu ko defee iblis itam mën nga ko gis ci melokaan bu bon bu ñàng lool sax mu ñëw di la intimider wala yu mel noon lool miin nañ ko mën nañ ko gis itam mu sol jàllaabi bu rafet xam nga jalaabi yére rek la sol benn kaala defar defar faas yi ba mu baax nga naan laa nit yàlla bu mag laa gis ci fekk gis iblis nga sol gis mën nga ko gis itam mu yore melokaanu jeune nga naan jeune moom boo ko gisee ci gént ku baax la fekk déedéet mën nga ko gis itam ci melokaanu xaj xaj mën na la feeñu wala till fekk seetaane la mën nga gis itam leer rek mooy ngay nekk ci xalwa ba yàgg gis leer gu xonq fekk iblis la ndax moo yore eh, eh, couleuru flamme te moom flamme la mais ñun li ñu miin mooy dama gis leer gu weex tal iblis mën naa soppaliku weer gu leex leer gu weex tal mais dadul doon euh, maanaam dadul dadul weex tal mais mën na weex euh, mais du sell mais ak lu ci mën a nekk iblis bu soppalikoo leer gu weex comme moom weexul leer gu ñuul la maanaam moom iblis xam nga safara bu ñuul kuk la looloo tax du mën a yàgg ci loolu waaye yii nag boo tëjoo di amoo kilifa iblis feeñu la nan ngay xamee ne kii du iblis dama doo ko mën a xam bu ko defee mu jox la programme nga di ko dérouler woo ci nit ñi fekk na boo deewee nekkoo ci dara yàlla ci yàlla musal bu ko defee fow nga dem ci nitu yàlla yi ànd ak ñoom seen lumière gunge la ba nga xam ne boo waree dugg ci lu dugg euh, loo xam ne ni ja matu la dugg seen lumière mooy dox sa digganteeg loolu wala ñoom ñu tere la ko waaye bu dul loolu dinga nekk foog na ci dara nga ne te wax dëgg yàlla nekkoo ci dara loolu dal na ay kilifa yu bari ñoo xam ne yor nañu tournée dañ koy werd ba mbooloo ñëw ñu commencé di def ay bases yoo xam ne war nga xam ne daal jullit piir sax warul def li waxatuma laa nitu yàlla bu ko defee mu ko utal ko ay excuse euh, ñii ñu xiir leen ci di naan sàngara te nee nañ wëli yu lañ ñi ñu xiir leen ci topp jigéen ñi te nee nañ wali yu lañ fekk yooyu yëpp li ko jur mooy xalwa yañ def la leen dugg dugg na leen mais ñoom dañ teg loolu yàlla fekk iblis la waaw lii nan la ko nit mën a xàmmee hmm? xam nga loolu yàlla moo ciy dimbali nit rek tabaarakallahu waaye wax dëgg yàlla euh, iblis moom naxari naa mucc torop torop te kenn ku ne la nga gën a bëgg bu lay daaneel foofu lay jaar te loolu xissa bii ma lay nettali moo ko moo la koy gën a confirmer te mooy fii xuraasaan euh, euh, euh, zawiya fa qultu bada kalaamin maahu uridu an asmaa minka xadisan samictuhu min rasulillah saa sallam bila wasit kama samica alcheikhu rukna almilla waddin ala uddawla qaddasa allahu sirrahu minka bila wasitatin fatagayara thumma ida fataxta الحديث وقلت يا رسول الله إذا رأيت الرجل حجوجا معجبا بنفسه فقد تمت خسارته قام وهرب متغير الصورة الخضروية إلى صورة لس متكدر فقصدت أخذه فلم أدركه فقال والمقصود من هذا التطويل التنبيه والتحذير حتى لا يقع السارق المتبتل القاصد لرؤية الأشياء وقوع خوارق العادات في شبكة الشيطان ولا يدخل الخلوة إلا بإذن الشيخ قطعا قال بعض المشايخ من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان قال ولقد رأيت بعض من يدعي الإرشاد قطع الشيطان عليه الطريق وصار من أكبر وكلائه في الإضلال والفساد والإفساد في معرض الإرشاد فالصدق والإخلاص وعدم الإعجاب بشيء من الفضائل المحققة الوجود وإدهام النفس بالسوء على الدوام ورؤية التقصير وعدم الاندراج في زمرة الكامل وحسن الظن بالله تعالى والتحرز من الاستعجال في نيل الوصول والتوطين النفسي على التحمل في الاعتذال عن العوام والأراذل وعدم الاستحار استحقار من من آمن بالله ورسوله wa qasri al amal wa mulaaxadati hujumi al ajal mima yuayisu alcheytaan wa yuqicu fi lxirmaan can iqaaci darar fi manaafici alimaan wa yadfacuhu cama yacuuqu saaliku fi lcuruuji ila dirwati lcirfaan nasalu llaha taala irfaan nasalu llaha taala ulwa lhimma mu ne itam nit ni mu war a wattoo cheytaane boobu nee na mooy li borom téere bi wax nee na dama mës gis euh, dama tëju xalwa xëy na amul sëriñ wala amul ci ndigal euh, nee na bi mu tëjoo xalwa fële ci xuraasaan jekki-jekki benn jëmm feeñu ko nekk man maay xadir euh, dama ñëw direct comme jox la ay xam-xam ni ma béggee ci yow nangam nangam Euh, muy li ñu weesu léegi ba mu demee nag ci sëriñam wax ko ko mu ne ko bula la dikkalatee euh, tontu ko nangam ak nangam di nga yëg ne bu nekkee foofu di dagganteeg yow rek di wax mooy di wax di këral ak yow xamal ne du xadir keneen la euh, yàlla dogal xale bi bi mu demee loolu feeñu ko di ko wax ay wax mu commencé di ko laaj yeneen i laaj ne ko yonent yàlla Muhammad dafa waxoon nangam ak nangam xam nga Iblis nag turu yonent bi lay bañ a dégg euh, ci sasi rek mu commencé mer énervé wu euh, commencé di tuuti ndax leeru turu yonent bi di tuuti di tuuti ba mujj gi melokaanu benn sàcc bu ñëpp xamoon ci dëkk ba la mujj mel xam nga ne ku yiw nag ba tudde sa bopp xadir boo mujjatee wàccee wàcce wàcc ba mu jegi mel melokaan bi boo xam ne ñëpp xam nañ ne kook bandi la woon nee na ma ne ko yow koy ndeke saay-saay bi nga yow iblis nee na ma jóg di ko daw di ko dabu ji mu échappé ma nee na yow taalibi bi looloo tax na nga góorgóorlu nga wottu woote yi xew euh, bari na ku naan woote yi bari na fekk moom ci boppam mu ngi woote mu ko defee jaamul yàlla xanaa kon tariqa yi am na excuse ci tëj gi mu tëj taalibe yi ndax bu doon ñëpp ay gis waa àdduna bi tukki looloo tax kon nanga nga wottu di dugg ci yoo xamul euh, ndax di wër ay kéemaan ba dugg ci loxoy seetaane xam naa ne iblis moom fa la kéemaan yem moom ndax moom bu ko neexoon léegi léegi léegi mu def la millionnaire léegi waaye boo ci deewee mari de kon bul dugg mukk xalwate amoo ndigal ci sa sëriñ ndeem sëriñ bu mat sëriñ la ndax dañu wax ne ku amul kilifa seytaane di sa kilifa te nee na bari na lool ñu ma gis ñuy woote ne ay sëriñ lañu ay nitu yàlla lañ te fekk seytaane moo leen dogaale jox leen ay sirru yu bona bona bona bon ñu samp di def ay kiimaan ñoom ñu ngi ame melokaanu kuy orienté nit ñi te en réalité dañuy désorienté nit ñi ndax iblis mi ñu signanteel ay pacte te li yéeme mooy bu fekkoon ñooñu kenn xamu leen mais ay sëriñ lañuy doon ci wàllu visibilité fekk na la yor ci ay ci ay pacte ak cheytaane ak ci ay confrérie secrète kenn xamul nu mu toll te loolu se visible maintenant kon ndekete daal dëggu ak pas-pas ak bañ a gis sa bopp ci ngëneel yoo am moo gën a gaaw ci sàmm nit ki ba du dugg ci yu mel noonu waaye nit boo xamee ne daraja juñ la gàll nga xeeb ko di sàkku beneen daraja juñ la gàll nga xeeb ko di sàkku beneen koo jiite fukki nit yoo jiite yaa ngi xool noo jiite waatee téeméeri nit mbooloo moo am xeeb nga ko dëkk boo dem jàppale ne yaa fa war a jiite nit ñi loolu iblis ku mu vérifier sa xol ba xam ne noonu nga mel dana la jox yoo xam ne ni pour nit ñi topp la waaye ku jubul wax dëgg yàlla boo bëggee jubal at ñeneen ñi dangay ngay gën a sonn kon nanga rafet njort ci gaay yàlla yi boo ci amee kenn nga ku ci moom te bañ a yàkkamti ba yàqale yàqale sa bopp ndax olof day wax ne ku yàkkamti ku mar nga naan petit bu robinet tijjee nga rus bu ko defee bu la dara naan loo petit ngir yàkkamti ak bëgg a sa bakkan ak bëgg a pour wane ne yow ci gaa yi nga bokk ba tax public bi mas gi toppala te jëmoo fen nga bañ itam di xeeb kenn ku gëm yàlla ak ab yonentam ba jàpp ne yaa war a doon seen kilifa nga gàttal itam say mébét ak itam bañ di dal ci eh, eh, maanaam gaay yàlla yi waaye itam di yàkkamti bëgg a feeñ ba tax seetaane dugal la ci guta goo xam ne nii doo fa gaaw a génne bu ko defee yow ngay rëgët nit ñi di leen yóbbu ci ak bon ak yàqu te dara taxul lu yàkkamti yàlla na yàlla may ñu yitte yu kawe bañ xam lool Cheikh Omar nag ne qultu fa ida fahimta hada faalam anna hadi tariqat al ahmadiyati al ibrahimiyati al xanafiyati tijaniyati tariqatu shukrin wa mahabati eh, alriyaadi fi ma ta eh, fi fiha taariqu alqulub bilxaqi subhanahu wa taala wa ilzamuha alcuquuf ala baabihi wallaja ila allahi taala fi alxarakati walsakanaati eh, waltabaacudi an alxafalaati almutaxayalati bayna alxuduri bayna alxuduri euh, almutaxayilati bayna alxuduri wa cibadatihi taala ala ixlaas alcubudiyati walbaraati min kulli alxuduri ma alictiraafi bilcajzi waltaqsir wa adami tawfiyatihi lirububiyati xaqaha wa sukuni dalika fi lqalbi ala mumarri alsaacaati walawqaati fi fa baynana alwaxid minhum fi maqaami altawbati walistigfaari min aldunub id jaahu alfatxu almubin fa lidalika laa yakunu alfatxu ala waxidin minhum illa hujumiyan la tashawuka la tashawufa minhu ilayhi wa xaytu kaana hada fala yakunu illa rabbaniyan laa yanaaluhu illa almuqinu alcaarifu alxabibu alladi laa yastadriju bilkushufaati alkawniyati والكرامات العيانية لئلا يركن إليها ظنا منه أنه قد حصل على طائل فتزل قدمه في مهاوي الهلاك wa huwa gaafilun wa yudillu fa yadilla wa yahliku kama yaqacu li kathirin min addaalina almudillina alladina salaku alطariqa wa istacmalu alxalawaati li agraadin faasidatin min gayri sheykhin aslan aw biyadi sheykhin kadaabin gayri waasilin maaduunin lahu fi lirshaad walam yaclamuu anna almaqsuuda min altarbiyati huwa tasfiyatu aldaati wa tathiiruha min rawcuunaatiha min racuunaatiha xataa taallaqa xata tutiqu xamla sir walaysa dalika illa bi izahati dala minha wa qatci alaiqi batil an wajhiha summa qatci lbatila taaratan yakunu bi sifatiha fi amalin wa taaratan yakunu wa taaratan yakunu fi fi fi wa taaratan yakunu fi sifaati safaa'iha fi asli xalqatiha bi an yutahirahu llahu bila waasil wa hadihi xaalatu alquruun althalatha alfaadilati alladina hum xayru alquruuni faqad faqad kaana annaasu fi tilka alquruun mutacalliqiina billahi baaxisiina alayhi ida naamuu naamuu alayhi wa ida istayqaduu istayqaduu alayhi wa ida taxarrakuu taxarrakuu alayhi xataa inna man fataxa allahu basiratahu wa nadara ila bawaatinihim wajada cuquulahum illa annaadir mutacalliqan billahi wa birasulihi baaxisatan على الوصول إلى مرضاتها فلذلك كثر فيهم الخير واستطاع ذواتهم نور الحق سبحانه وتعالى وظهر فيهم من العلم وبلوغهم درجة الاجتهاد بما لا يكيف ولا يطاق ولا يطاق فكيف فكانت التربية في هذه القرون غير محتاج إليها وإنما يلقن الشيخ مريده وصاحب سره وارث النور فيكله في أذنه fa yukallimuhu fi udnihi fa yaqra'u alfatxu lilmurid bi mujarradi dalika taharati dawaati والصفات العقول والتشوفها إلى نهج الرشاد ويكون فتح ويكون قطع الظلام من الذوات بسبب بتسبب من الشيخ وذلك فيما بعد القرون الفاضلة حيث فسدت النيات وكسدت الهويات وصارت العقول متعلقا بالدنيا باحثة للوصول إلى نيل shahawaati wa sifaai daati fa kaana cheikhu saaxibu basiratin yulaqinu muridahu waarithahu fa yuarifahu fa yacrifahu wa yanzuru ilayhi fa yajidu aqlahu mutaalliqan bilbaatili wa nayli shahawaati wa yajidu daatuhu tattabicu alaqla fi dalika fatalhu maca allaahin wa tashu maca saahin wa tamiilu maca almubtinin wa tataxaraku aljawaarixu fi dalika xarakatan gayru maxmuudatin min xaysu inna alaqla alladi huwa malikuha marbutan bilbatili la bilxaqi fa ida wajadahu fi hadihi alxaala amarahu bilxalwati wa bildikri wa bitaqlil alakli fa bilxalwati yanqatiu an almubtilina alladina hum fi cidaadi almawta wa bildikri yazulu kalaamu albatil wallahwi wallagu alladi kaana fi lisaani wa bitaqlil alakli يقل البخار الذي في الدماء فتقل الشهوة فيرجع العقل إلى التعلق بالله تعالى وبرسوله فإذا بلغ المريد إلى هذه الطهارة والصفاء أطاقت ذاته حمل السر وهذا هو غرض الشيوخ من التربية وإدخال الخلوة ثم بقي الأمر على هذه المدة إلى أن اختلط الحق بالباطل والنور بالظلام فصار أهل الباطل يربون من يأتيهم بإدخال الخلوة تلقين الأسماء على نية فاسدة وغرض مخالف للحق وقد ضيع وقد يضيفون إلى ذلك عزائم واستخدامات تقضي بذلك إلى مكر من الله تعالى واستدراجات انظر الإبريز للشيخ أحمد بن مبارك إن قلت قد ظهر لنا أن قصد الكشوفات الكونية والكرامة العيانية مذموم ومضل ومهلك وإن طريق شيخهم وإن طريقة شيخهم tariqatu shukri cheikhikum tariqatu shukrin fa lidalika manna allahu ala ahliha bi xifdihim min al abatili allati yudillu biha alchayatin walakin turidu walakin turidu an tazidana bayanan fi dalika wa tabayana lana aydan alfarq bayna tariqati shukri allati hiya tariqatukum wa tariqu almujahid wa tariqatu almujahadatu xata anna al awal hada madaar madaaruha kulluha ala shukri walfaraxi bilmuncim min geyri mashaqatin wala kulfatin wal uxra madaaruha ala riyaadati wattaabi walmashaqati wal walsahwi walju walsahari waljuuci wa geyri dalika wa ayuhuma awlaa hal huma mutawaafiqaani ala riyaadatin wa innama yamurukum cheikhukum bishukri bacdal qurbi lil wusuli aw indahu aw huwa am amara bilshukri walfaraxi billahi min awali wuhlatin wa xiina albidaayati wa hal tariqaani yumkinu suluukahuma alrajulu alwaxid aw laa yumkinu an yantafica bi ixdeehuma illa bilicraadi an aluxra aqulu waljawaabu wallahu taala almuwafiqu lilsawaab ma naqalahu ahmad ibn mubarak fi libriz an alcheikh alqutbi ibn abdulaziz عن الشيخ عبد العزيز بن مسعود دباغ أن طريقة الشكر هي الأصلية وهي التي كانت عليها قلوب الأنبياء والأصفياء من الصحابة وغيرهم ومن عباد الله الصالحين أن من الصحابة ومن وهي عبادته تعالى على الإخلاص العبودية والبراءة من جميع الحظوظ مع الاعتراف بالعجز والتقصير وعدم توفية الربوبية حقها wa sukuuni dalika fi lqalbi ala mumarri saaati wal azmaan fa lamma alima minhum tabaraka wa taala alsidq athaabahum bima yaqtadihi karamuhu min alfatxi fi macrifatihi wa nayli asraari alimaan bihi azza wa jalla fa lamma samica ahlu riyaadati ma xasala li haulaai min alfatxi fi macrifatihi wa nayli asraari alimaan bihi azza wa jalla jacaluu jacaluu dalika huwa matlubahum jacaluu dalika huwa matlubahum wa margubahum fa jacaluu yatlubuunahu bilsiyaami walqiyaami walsahri wa dawaami alxalwati xata xasaluu ala ma xasaluu falhijratu fi tariqi fi tariqati shukri kama kaanat min awali alamr ila allahi taala wa ila rasulihi la ila alfatxi wa nayli alkushufaati walhijrati fi tariqati riyaada kaanat lilfatxi wa nayli almaratibi walsayri fi alula siyaru alqulubi والثانية سير الأبدان سير القلوب وسير الأبدان وللفتح في الأولى هجومي لم يحصل من العبد تشوف فبينما, فبينما العبد في مقام طلب التوبة والاستغفار من الذنوب إذ جاء الفتح المبين والطريقتان على الصواب لكن طريقة الشكر أصوب وأخلص والطريقتان متفقان على رياضة لكنها في الأول رياضة القلوب bitaalluqi bitaalluqiha bilxaqi subhanahu wa taala wa ilzaamaha alcukuuf ala baabihi wallaja ila allahi fi lxarakaati walsakanaati waltabaacudi an alxafalaati almutaxayilati bayna awqaati alxuduuri wa biljumlati falriyaadatu fiha taalluqu alqalbi billah azza wa jalla waddawaamu ala dalik wa in kaana alzaahiru gayra mutalabisin bi kabiri cibaadatin walidalika kaana saaxibuha yasuumu wa yaftur wa yaquum wa yanaam wa yuqaaribu nnisaa wa yaati bi saairi wadaifi sharci allati tudaadu tudaadu riyaadat al abdaan wa qaala marra uxra bacda qawlihi walhijratu fi talabi alriyaada kaanat lilfatxi wa naylu almaratib summa bacda alfatxi minhum man yabqa ala niyatihi alula fa yanqatiu anhu فينقطع قلبه مع الأمور التي يشاهدها في العوالم ويفرح بما يرى من الكشف والمشي على الماء وطي الخطوة ويرى أن ذلك هو الغاية وهذا من الذين خلت قلوبهم عن الله جل عز وجل في بداية الأمور ونهايتها ونهاية فهو من من الأخسرين أعمالا للذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومنهم من تتبدل نيته بعد الفتح ويرحمه الله تعالى ويأخذ بيده فيتعلق قلبه بالحق ويعرض عن غيره وهذه الحالة التي حصل لهذا بعد الفتح هي كانت البداية في طريقة الشكر فيما بعد هذين بعد الطريقتين وتباين ما بين المطلبين وبالجملة فالسير في الأولى سير القلوب وفي الثانية سير الأبدان والنية في الأولى خالصة وفي الثانية مشوبة والفتح في الأولى هجوميا لا تشوق للعبد فكان ربانيا wa fi thaniyati naylu naylun bi xiilatin wa sababun fanqasama ila wajhayni saabiqayni walfatxu fi lula laa yanaaluhu illa almuminu alcaarifu alxabibu alqaribu bixilaafi alfatxi fi thaniyati fa innaka qad samicta anna lirruhbaani wa axbaaru alyahud riyaadaatin tawassaluu biha ila alshey min alistidraaji wa ama aljamcu baynahuma fa yumkinu lilshaxsi an yucalliqa qalbahu billahi fi saa'iri xalakaatihi wa sakanaatihi wa yuqimu zaahirahu fi lmujahadaat walriyaadaat wallahu aalam Mawlana Xaaji Omar léegi nag pour tëj fasl bi euh, dafa wax ne suñ tariqa bi tariqa la boo xam ne kashfu taxu koo jug ak fatxu ak am ubbeeku di gis asamaan di gis arash di gis kursi di gis jinne yi di gis rab yi di gis malaaka yi yooyu nga xam ne yow boo sooboo ci yoonu yàlla léeg-léeg nga déglu ay nit ñu wax la ba nga jàpp ne yow ñàkk am gi nga ñàkk am yooyu tax na yow doo tiijaan te loolu yaatu na euh, ndax yàlla mooy def lu ko neex mooy may ku ko neex Cheikh Omar nag nee na risque yi nekk ci tëju xalwa wala am kashfu risque yi ca mën a nekk muy gis benn jëmm bu ne la may xadir te fekk seetaana la bandi la boo xamee ni rey la rek la bëgg ndax gëstu na fu nekk pour xam nu lay yàqale amu ko mu indi melokaanu góor gu baax yor kaan nan laan xamoo ma man maay <laughs> man xadir man maay sëriñ diw nga tëb di dal ne ah du dañ day coono bi ma daj xamoon naa ne dinaa am lii nee na teeyal Cheikh Omar bi Cheikhu Tijaan yi comme moom dafa civilisé xamee ne risques yi yëpp mu ngi fi te defe naa léegi yaatu na ba bari na koo dégg diw kay feeñu fekk xamul sax diw li kay feeñu waxu ko tax si xajmaay boo ma saan ñëw ci moom ndànkaan diwa ma feeñu mu ne mu xool la ree ndax xam na ne ku diw di feeñu du mel ni nga mel am ku dem ba bopp bi ëlbatiku mu naan yonent bi daan waxal léegi xam nga da ngay xam ne rek ci leneen la ne Cheikh Omar ne comme risque yooyu daf fi am te ba tey ñu ngi gis risque yi man dugg naa ci oto nit muy muy xas course naan course baaxul course baaxul diw moom la doon werd ba dof diw moom la doon werd ba dof diw moom la doon werd ba dof xam nga ñooñu kooku mënatul gëm ne course baax na man ko foo dëkk mu ne ma Casamance mais course baaxul di wax loolu ci kooku nag laa mas a dégg mu naan course baaxul gëm ko gëmin woo xam ne nag jéggi na dayo kooku ragal naa ku ko ne kaay def baaxeet saalihaat sax mu tiit Cheikh Omar ne nag bi Cheikhu Tijaan yi xamee ne loolu risque la te Cheikh dafa civilisé ndax tariqatul ahmadiya ibrahimiya xanafiya tijaaniya bii looloo tax rek Cheikh yemale ko ci tariqa amour ak reconnaissance yombul nga jaamu yàlla paisiblement dee dem àjjana nitu yàlla yi ngay naw yëpp boo demee boo yéene bokk salle d'attente loolu koy jarul rey sa bopp moo tax Cheikh nga mën a gis koo xam ne mooy directeur généralu société bi ba pare doon taalibeem da ngay julli dangay xëy julli gannaaw boo sangoo ba set julli tabaarakallahu lazim wasifa pare sol sa euh, sol sa costume takk sa cravate xeeñ parfum bu neex dugg sa oto dem dem yendu sa bureau lu la wàññi xam nga bu la seetaane feeñu woon di jëppi-jëppi di nga mën a ci loolu cheikh looloo tax mu waral ci ay taalibeem maanaam tëjal leen boppam ba nga xam ne yoon wara rek lay ubbi muy tariqa reconnaissance bu ko defee ñoom seeni yëngoog seeni dal ñu mën a sori leneen lu dul yàlla di teewlu yàlla fu ñu nekk ci pas-pas bu sell lépp lu dul yàlla ñu wan ko gannaaw ànd ak reconnaissance ci ne ñoom dëgg-dëgg niñ waroon a jaamoo yàlla sax matalaguñ ko ni ñu waroon a joxe yàlla cëram matalaguñ ko waaye seen vingt quatre heures yëpp yàlla moomu la ñuy defal clin d'œil ci maqaamu tawba bi ñuy def ndax fu ñu laasimee dinañ def istaghfirullah jéggulu ci seen bàkkaar yëpp jàng saat fatir solaat ay leer laa ilaha ñu reconnaître seen borom léegi nag jamono lii programme bi boo ci nekkee fooy dofe ah fala la di feeñoo boo paree nga dem liggéey ji léegi nag ñooñu ku ci yàlla bu nar a defal teraanga da ngay jekki-jekki rek fatxu dab la nga commencé dégg loo daawul dégg mbaa ngay gis loo daawul gis mais dafay naturel ba nga xam ne généralement sax nga nëbb ko mooy xaw a gën ci yow nga koy feeñal parce que nekkoo ci posture ñu xam la wala ñu euh, euh, euh, xam ci yow dara loolu ñooñu la ñuy oowee rabbaani yuuna ñooñu iblis wax dëgg yàlla amul ci ñoom posé bu muy jaar pour wan leen ay kéemaan wala di leen di leen daaneel mais koo xam ne nag moom li ko tax a jug mooy man daal fi gaa yi yegg laa bëgg a yegg te xamul gaa yi yan gaa lay wax moom ba tey xàmmeegul gaa yi jombul sax ki mu def échantillon kooku iblis ak récupéré te moom yëgu ko mu ne waaw parce que suñ diwa ngi nii yor oto yu dul jeex am kër yu dul jeex am lii am lii ñëpp xam ko te xamul ne kooku iblis ak récupéré Cheikh Omar nee na kooku day xëy rek def faux daanu dugg ci loo xam ne nii tabaarakallahu ñu naan am na fatxu am na fatxu fekk amul ouverture fermeture la am la mu jotoon ne sax moo njëkk moo gën li mu nekkee mu am nag mbooloo am tur tabaarakallaahu di tëju di faj ay soxlaam fekk na seytaane récupéré na ko bu yàgg mu doon un menteur kooku noonu parce que amul sëriñ wala sëriñam déglu dégluwul sëriñam wala boog sëriñ ba mu wékku ci moom tanew ko boobu nag moo gën a daw yaram sëriñ boo xam ne fonk nga torop te mënalu la dara Cheikh na Tijaan nag bi mu xamee yii euh, te xam ne nit liy jariñ li koy jariñ mooy mu sellal boppam maanaam raxas boppam ba boppam maanaam xolam sell ci euh, yàqu-yàqu yi ak tilim-tilim yi ba nga xam ne ruuxam dina attan secret yàlla bis bu ko yàlla defee ba mu enlever obscurité yi ne ci moom dindi bon bon yi nekk ci jëmmam bu ko defee yàlla day xëy benn bés rek bett ko Euh, ci lumière boo xam ne da koy raxas ba mu set wicc moo xam da koy defal nag directement wala indirectement après jox ko sëkkëram loolu moo gën a woyof nee na sëriñ su maanaam tarbiya yii dafa am ku laaj ne waaw tarbiya yii ngeen defal nit ñi di leen tëj xel xalwa saxaaba yi xamuñu ko woon taabiina yi xamuñu ko woon taabii taabiina yi xamuñu ko woon te mooy troisième si euh, mooy trois siècles les plus meilleurs waaw yéen léegi nan ngeen sose loolu laaj nañ ko Chérif Abdoul Aziz sëriñ bi dina ko firi ci kanam euh, mu ne euh, effectivement ñooñu soxlaw ñu woon tarbiya tarbiya riyaada mooy mooy raxas sa bopp entraînement entraînement spirituel nee na ñoom saxaaba yi ak taabiina ak taabi taabiin euh, existence yonent bi moo leen setaloon xam nga yonent bi lumière la lumière ku dëkk ak moom nooy def faw faw dangay ngay set wicc ñoom set gi leen yonent bi setaloon tax na bu ñuy nelaw ci yàlla la ñuy nelaw bu ñu yeewoo ci yàlla lañ yeewoo bu ñuy yëngu ci yàlla lañ yëngoo xam nga kuy xare ji badar ak xunay ni ngaan kaan kaay tëju xalwa du la faale ndax li muy am ci guerre ba moo raw xalwa bi looloo taxoon ñu sell ba nga xam ne yàlla fu mu bëggee connecté wu ak ñoom directement lay connecté wu ak ñoom moo tax soxlaw ñu woon ñoom di am ay kashfoog ay fatxoog ay nangam nangam parce que ñoo yàlla ñoo nekk directement lii moo doon yoon wu njëkk bi deuxième euh, euh, euh, génération bi ñëw mel noonu ndax mag ñee leen jàngaloon ñetteelu génération bi mel noonu bi ñu demee nag ba quatrième génération nit commencé tilim rayante bi commencé bari léegi nag ci la sëriñ si di ber seeni taalibe di leen defal tarbiya pour ñu sell comme sellu mag ña pour dindi tilim tilim yi nga xam ne ni moo nekk ci seen bakkan yi waaye nag bi ñu ñooñu bi ñu commencé am fatxu dafa am ñu leen commencé infiltrer mooy gis ñooñu commencé nañ am fatxu di wax ci yàlla eh, ñoom nag ñu ne dañ bëgg a mel nii ñoom it ñu dem ci yeneen i sëriñ ñu jàngal leen loolu mais bii yoon yàlla taxul ndax ñële bi ñu leen di defal tarbiya yàlla kese la woon mais ñii ñoom lan lañ bëgg am fatxu am kashfu am may yi sëriñ sële amoon ñu njëkk ña ñooñu moo tax seen pas boobu wax dëgg yàlla jotul jotul sell dëgg-dëgg comme mag ñu njëkk ña mais teewul comme yàlla moo leen tax jug yàlla teral na leen ñu xam dara ñooñu nag ñoo tëju xalwa euh, ñoom it ba ba ñuy am xalwa maanaam ba ñuy am sell ñële sell gi dafa naturel tariqatul hamdi wa shukri rek la Euh, mais ñii ñoom dañoo dem tëju ji ba ba ñuy am loolu ñetteel ba nag ñoom ñoo ñëw gis sëriñ si am daraja am mbooloo te ñoom xamuñu ay arriviste lañ ñoom xamuñu ñii lan lañ def ba am ko ñoom ñu ne léegi dañuy tëju ñoom xalwa pour am mbooloo am adduna xoola affaire bi ni mu gën a wàccee hmm? ñooñu nag ñoom la Iblis di recevoir euh, bu ko defee jox leen ay confréries yoo xam ne ñoom sax duñ xam fu ñu jëm bay xam fu ñu yóbbu nit ñi xam naa iblis dina day pare ree leen nee na loolu Cheikh Omar nee na en ndax lii Cheikh dina ko nangu hmm? euh, pola nee na loolu moom lañu ñu laajoon euh, Chérif euh, tabarakallahu Abdul Aziz taalibeem laaj ko mu tontoo ko nii comme ni mu koy indiwaatee intégralement ci kanam nee na nag bu fekkee danga nga wax ne waaw ndax def ay xalwa pour am ay kéemaan am ay karamaat ndax loolu dafa aram wala day réeralaate d'ailleurs ndax yow yaa ne seen sëriñ sëriñu tariqa mooy Cheikh na Ahmada Tiyaani moom bi mu xamee ne loolu dafay infiltrer yàllay kese looloo tax mu dàq fi hypothèse boobu ba indi rek tariqatu hamdi wa shukr wal mahabba waaw léegi dama lay laaj dara mooy lan mooy kon différence u tariqatul hamdi wa shukr ak mujahada mujahada mooy kuy tëju xalwa di yar boppam di yar boppam ba ba muy mel ni mu bëgg wax na la risque yi ci ne ak koo xam ne nag journalièrement li nit ñi dunde rek lay dund mooy bu xëyee ndekki bu añ jotee mu añ bu reer jotee mu reer euh, bu waree naafila mu naafila après du ko teree dund li mu doon dund lan mooy différence bi xam nga loolu mat naa laaj tariqa mujaahada lan mooy différence am ak xam hamdi wa shukri mu ne euh, wala wala ndax kenn mën naa sóoboondoo ñaar yëpp wala par force benn rek ngay choisir soobu ko mu tontu ci nag wax ji ñu doon wax boobu ba tey dafa wax ne tariqatul hamdi wa shukri Chérif Abdou Aziz nee na moo doon cosaan ndax yonent bi ak mboolem yonent yëpp est-ce que gis nga leen ñuy yare ci xalwa déedéet ñoom kon euh, qulu laa ilaha illallah tuflihu di leen wax laa ilaha di def le cinq piliers de l'islam benn yonent bu ne lay sharia am lay doxal loolu boo ko yàggee def jarul tëju dalay raxas ba nga set wicc mais boo ko defee te yàlla tax moo tax kon tariqatu shukri bii nga xam ne mooy cosaanu tariqa cheikh na ahmada tijaan yi mooy nga doon jullit bu naturel rek di jullit di woor di nàkkam loolu moo doon yoonu mag ñu njëkk ñu yonent yépp léegi nee na bi nit ñi demee ba commencé di ci rax dara la am ñu beru di sellal ñoom seen pas-pas yàlla jox leen tabaarakallahu ci mbaaxam ndax yàlla du euh, du du neenal jëf ndax nag bu amee bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër léegi ñi nga xam ne bi ñëpp baaxee ñoom dañoo tëjuwaat di defaat lu lu public bi deful foofu yàlla dina leen xamal lu public bi dul xam ñooñu nag beneen génération bi ñu ñëwee ba gis ñooñu bëgg lañu am tax ñoom itam ñu dem di tëju ji di woor aka la guddi aka def xalwa ngir bëgg a am tabaarakallahu ñi li ñële am nee na kon yoonu yàlla yi ñaar rek la yoon bi nga xam ne mooy yoonu public bi te mooy tariqatu shukri bu laajte nag booboo gën ci yoon yi ndax li gën a gaaw a yàqal nit mooy yëg sa bopp xam nga ki ki ci nekk du ko yëg ki nga xam ne cinq prières yëpp jàkk ja la koy jullee kooku du jàpp ne moo gën waa jàkk ja ki nga xam ne bu koor jotee day wóorandoog ñëpp du jàpp ne gën na dara jullit yi or que nag beneen bi mooy mujahada effort bi nga ciy def dafay tax bu la seetaane bëggee daaneel rek dalay wan ne yaa gën ñii parce que effort bi ngay def fekku ci ñii kon yoon wu jëkk wa moo gën ndax modeste lay àndal mooy yoonu yonent yi yoon bu ñaareel bi mooy yoonu tabaarakallahu ahlul mujaahada yi nga xam ne dañoo bëgg dara gis nga labbe yëpp ci yoon woowu lañ génnee gis nga li leen ci mujj a dal bu njëkk ba moo tudd sayrul abdaan mooy doxu yoon euh, doxu yaram yaram yi mooy liggéey bi ci des mooy sayrul xulub mooy doxu tabaarakallahu xol yi léegi nag ki nekk ci yoon bu njëkk bi bu ko fatxu dabee du du dera du changer dundam parce que na mu daan dundee rek lay dunde ku ne nag ci yoonu ñaareel bi bu ko fatxu dabee wala kashfu euh, dafay sensible ak risque yi ko ci mën a fekk yépp Euh, ci yëg boppam ak wane na lu ma moroomu gaayeeg lu ma am maaka liggéey ak yu mel noonu bu boobaa nag kooku mu ngi ci risque amaa yoon wu njëkk wa kooku nit ñëpp mel lay mel nga xam ne dara du ko changé ci euh, maanaam jaaruwaayam loolu moo tax Cheikh na Ahmada Tidiane yi nag jël yoon wu njëkk te mu ndax bul fàtte na tariqa Tidiane ya sëriñam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa te comme boobu mooy yoonu yonent bi moom daawul tëju xalwa mu ngi ci penc mi mu ngi ci jullit yi daan na wax na sax ne man lam yahtamma bi umuril muminina muslimina fa laysa minhum ku yitte woowul mbiru jullit yi bokkoo ci ñoom looloo tax Cheikh na Tiyaani bi ko yonent bi feeñoo lan la njëkk a wax min gayri xalwatin wala atizaali subhaana rabbi daa imil kamali looloo tax yoon wi naturel lool da ngay gis xale bu am 15 ans jël werde di laazima ko wasifa ba ba muy yegg ci xadra yàlla du am benn jafe-jafe néew na koo gis ñu ne jël na werd yóbbu nañ ko ci théâtre ba ndax bopp bi dafa ëlbati ko doo ko dégg parce que sayru boobu moo ko def te buñ jëloon mu jaaxada nag mooy dëkkee xalwaak werd tur yoo xam ne nii day ëlbati bopp kooku du deme noonu moo tax ñu bari xàmmeew ñu nag kooku doon wax naan kurus baaxul xàmmeew ñu yan werd la ñuy wax waaye tariqa tijaaniya wax dëgg yàlla Euh, ci jamonoom la ñëw ndax tariqatul mujaahada ñun xamuñu ko waaye bu fekkoon jamono jii day dox ba tey dañuy wax ne périmé na ndax léegi nit ñi amatuñu jot kenn ku ci nekk loo faye courant ngay wër ak ndox kooku xam nga boo ko bëggee tëjuloo xalwa jafe-jafe day am sëriñ bi nag di tëj fasl bi ne wa ila jami ma yu yushiru kalaama cheikhna radiallahu anhu يشير كلام شيخنا رضي الله عنه كما في الجواهر معاني حيث كان الأمر الثاني أوصيك أن ترك المحرمات المالية شرعا أكلا ولباسا ومسكنا إلى أن قال والأمر الذي لا بد منه وهو بداية جميع الأمور ونهايتها تعلق القلب بالله والانحياز والانحياز إليه وترك ما سواه عموما وخصوصا فإن قدر العبد على فإن قدر العبد على الارتحال alqalbu ila allah bi kulli wajhin wa ala kulli xaalin bi xarakati alqalbi xissan wa fa huwa algaaya kama qaala aydan walwaajibu ala xaqi saalik an yumsi wa yusbix wa yadul wa yabiit laysa lahu muraadun illa shay'aani al awal huwa lillahi azza wa jalla ixtiyaaran ala jamii almawjudaati walistigna bihi wa anafatan min min laxdiha wa giiratan an yaxtaara siwaahu walyakun wal yakun illahu huwa mabdauhu mabdau muraadihi wa muntaha wa awalu muraadihi wa axiruhu maftaxuhu maxtamuhu wa mustaxriqan li qasri muraadihi alayhi fi ma bayna dalika kulli xata la tabqa lamxa yuridu fiha gayrahu لأن إرادة الغير إما طمع أو عبث والثاني من من مرادات السالك أن يكون كله لله خالصا في رقبة غيره kaamil taalluq bihi sirran wa ruuxan wa aqlan wa nafsan wa qalban wa qaalaban xatta laa yakunu minhu darratan darratan muxtalifatan an illahi wa yakunu waaqifan maa muraadi azza wa jalla muxtalifan munsalixan an jamil iraadaati wal ixtiyaaraati wa tadbiraati wal xuduudi wa shahawaati wal agraad waaqifan fi dalika kullihi maa allahi subhanahu wa taala laa shay'a minhu li nafsihi wala bi nafsihi wala maa nafsihi walakin zalika ubudiyatan lillahi azza wa jalla min ajlihi wa iradatihi li wajhi wa ada alxaq wa ada ilxaq rububiyatahu wa ada ada li xaqi rububiyatihi laa li yacuuda calayhi shay'un wala yaxtaru cala allahi azza wa jalla an yakun lahu muraaduhu bal li taxallusi rububiyati rabbihi laa qanuutan min xayri min xayrihi li allaa yukaffir wa yuxsinu dannahu li an laa yukfar wa yuxsinu dannahu li ma huwa alayhi min alsifaati almahmuda wa ila maana jami ma taqaddama yushiru badu kalaami badu kalaamin amlaahu sayidu lwujud sallallahu alayhi wa sallam ala waxidin min ashaabi alcheikh radiallahu anhu yaqdatan laa manaan li yati bi ila alcheikh xaytu qaala rasulullah qul lahu yaani alcheikh huna tajarrudu alcibaada yanqasimu ila arbaati aqsaamin alcibaadatu alula huna hiya tajrid wal inqitaa ila allah bil amali kamila wal ixlaasu taam wa yakunu al inqitaa min gayri qasdin wa yakunu muraaduhu bi hada al inqitaa an yes yumajjid allah taala wa yucadimu wa yusabixu wa yuqaddisuhu wa yaxmadu allah taala ala alxaalati allati huwa alayha wala yaqsudu fi cibaaratihi shay'an wala yanzuru fiha ila shay'in fa tascuda acmaalahu ila allahi taala wa tadxulu lbaaba almaftux wa tanshaxilu bi taxawuli ma dakarnaahu awalan wala yakunu wuqufa tajalli li qawlihi taala walladina aamanu wa amilu salihaati wa ahlul wa ahlul amali saalixi hum alladina lam yaqcuduu fi acmaalihim lam yaqsuduu fi acmaalihim cheyan min maslaxatin wala manfaatin wala yasalu fi cibaadatihi illa alicaanata walcaafiyata alkaamila li axiratihi qul lahu xiyaaru sual ida saala axadukum falyasalu fi lcafwi walcaafiya wa ida kaana qasduhu fi tajriyi wa inqitaacahu wusulan laa ila maqaamin aw talabi cilmin aw sirrin tatalaca acmaaluhu xata tarida ala albaabi almuglaq fa tajlisa tucaayinuhu yanfatixu saacatan tarju saaxibuha yarjicu wa yaqulu cibaadatii lillahi laa atlubu xaajatan falihada فلهذا ألهم وقال هذا رجعت ودخلت على الباب المفتوح وإن لم يقل ما ذكر رجعت تلك الأعمال منقطعا قطاع الروح في الهواء فتجول حتى تسكن بمعنى تنقلب عليه خسرانا إلى أن قال صلى الله عليه وسلم قل لحبيب التجاني كل هذه المعاني في القرآن العظيم وقل له هذا الكتاب يدلك على ما أمرتك به قلت لك لا تقصد شيئا ولا تجتهد في xirsi cheyin ijtahid fi lcibadati wa muxaalafati nafsi falxirsu walijtihaad laa yakunu illa fi lcibadati lillahi aza wajalla wa muxaalafati nafsi walxirs fi ma yaqsudu linsan fi lcibadati huwa taxirun lilfatxi qul lahu huwa taxirun lilfatxi qul lahu huwa taxirun lilfatxi qul lahu huwa tacwiqun lilfatxi ila thalathi maratin wallahu taala almuwafiqu lilsawaab wa ilayhi marjicu walmaab Cheikh Omar nag ne nga gis ci ne euh, euh, ndekete tariqa tijaaniya mooy tariqa bu ñuy jaamoo yàlla kese kese kese daray àdduna du ci bokk Cheikh Omar na boo gisee lii ma doon wax léegi ci jawaahir mooy confirmer waxu sëriñ bi Cheikh na Ahmada Tijaani ci jawaahir maani ci waa jooju mu doon dénk ne ko maa lay dénk nga bàyyi lépp loo xam ne argent sale la boo ar alal joo lewul moo xam ci lekk la wala naan wala fooy dëkk te nga lépp loo ciy def lu mënta ñàkk na doon loo xam ne lu lew la te sa mboolee mi mbir yi nanga ko jox yàlla début bi ak fin bi nga jox yàlla sa bopp te lu dul yàlla nga bàyyi ko ci definitivement ndax jaam bi bis bu mënee yar xolam ba mën a dem ci yàlla lu dul yàlla du fanaanati ci xolam nekk na ci sommet ba te xam nga ki am lii mën naa bañ a am sax kashfu waaye waliyu te du ko yëg cheikh itam wax na ne dafa jaadu ci taalibe buy soobu ci yoonu yàlla bu xëyeeg bu gontee moo xam muy fanaan wala mu yeewu ñaari mbir rek la war a am benn bi mooy yàlla na ko def suwaawam ci biir ak ci biti nga xam ne du amati beneen soxla ci feneen ci dul yàlla subhaanahu wa taala mooy débeem mooy feewam mooy njàlbeenam mooy mujjëm moom lay tëje moom lay tijjee mu lab ci biir bëgg yàlla ba nga xam ne leneen lu dul yàlla du ci amati yitte te loolu la seex suñu maam xaj maa Maalik wax ne wa xayir wala taxtar fa kayfa ixtiyaaruna fa innama rabatil umuri taxibu cheikh na bu ñaareel bi moo di nga jël sa lépp nag sellal ko def ko ngir yàlla maanaam bu njëkkee mooy yàlla doon sa choix mais bu ñaareel bi mooy looy defati itam na nga ko def te yàlla rek rek tax moo xam ci biir la wala ci ruux la wala ci xel wala ci bakkan wala ci xol wala ci sa jëmm bul defati daal dara lu toll ni benn pepp suuf te loolu doo du yàlla nga ko defal ngir yàlla kese nga feesu ni ñuy reye xar fees ko nga feesu ci bépp namm-namm ak bëgg-bëgg bu dul yàlla cheikh nee na boo yàggee ci loolu dana dem ba yàlla mel ni da lay gisee ne sa xol raxas nga ko ba mu set te nag bool boo ko raxasee ba set ñu fi daa borom togg gi dina sawar pour yekkal la ci kon jaam bi noonu la war a mel nga xam ne buy jaamu yàlla bëgg a kashfu du tax bëgg ñu xamal ko dara du tax mais yàllay kese rek ndax la nga bëgg xam wala la nga bëgg a am kashfu mook yàlla ko ëpp kon am yàlla dafay gën lu dul moom mais tànk yaa ngi ut looy bëgg am ci li ngay jaamu yàlla xamagoo yàlla moo tax doo gaaw a mën a yegg ci yàlla kon jaam bi dafa war a rafleel boppam ci bépp bëgg-bëgg boo xam ne ni am na ko ci jaamu gi muy jaamu yàlla te sellal boppam ci yàllay kese kese te xam ne yàlla moo ëpp lu dul moom Cheikh Omar ne loolu mooy confirmer li Cheikh na Tijaan yi waxoon ba tey encore ci Jawahirul Maani ñetti passage yu bokkul la benn bu lii rek lay confirmer yonent bi dafa feeñu Seydi Mouhamad Damrawi Ibnul Arabi ak yi jox ko ay bayit ne ko wax ko Cheikh na Tijaan yi ba pare firil ko ko xale boobu ko amoon may la daan na gis yonent bi vingt quatre fois par vingt quatre mu ne ko nag yaa ngi ko amee ci barke bëgg gi mu bëgg Seydi Ahmed Tidiane ndekete kon kashfu bi ñuy wax ndekete kashfu li muy baax baax li ko nit ñi bëgg bëgg bëgg Cheikh Tidiane yi moo ko ëpp doole. mun yonent bi yóbbante xale bi ne waxal ma Cheikh na Tidiane yi ne jaamu yàlla ñeenti façon la bu njëkk bi mooy mu rafleel boppam ci keneen ku dul yàlla bu ba mel ni nit kuy bëgg a sangu ni ngay summeekoo ba rafle soog a mën a sangu. nit ki itam dafa war a rafleel boppam ci bépp bëgg-bëgg ak daraja ak pas-pas ak euh, bëgg ku ko xam wala bëgg kashfu yooyu da nga ciy summeeku ba set wicc li ngay def yëpp nga yéene ko yàllay kese kese kese doo ci jublu benn retour lu dul nga màggalee ko yàlla xam ne mérité na ko nga sàbbaalee ko yàlla xam ne mérité na ko nga sellale ko yàlla te di ko sant ci melokaan wi nga xam ne nii moom la yàlla mel donte yow xamoo ko waaye doo ci jublu dara ci jaamu gi mm, en guise de échange boo xam ne da nga naan bii de ku ko def di nga am lii moo tax ngay gis ne borom xijaab yi ba tey am nañ problème dañ lay weerale ay xaatim ak ay kayfiyaat ak ay tournée bii moom lii la lay jox bii lii la lay jox te moom yi muy wax ne moom lay joxe moom mi la kay jox amu ko ah xaatim bi boo ko dooree ba dugal kii baytu xaali bi nangam boo dooree tur bi da ngay am xaalis te moom boo ko joxee lool ba pare mu ngi xaar weexal gi moom bu la joxee ba pare xanaa moom liggéey ko bu ko defee loolu po la gën a jege bu ko defee yonent bi ne Cheikhu Tiyaani na nga sellal sa xol ba lépp looy jaamu yàlla doone le pourquoi moo tax ma koy def mais bëgg a màggale ko yàlla ngir xam ne yàlla mérité na loolu nee na loolu bépp jaamu yàlla bu ci duggee day dem ci porte bi muy ubbi directement dem ci xadara yàlla waaye contraire bi lépp looy jaam loolu mooy wax ci yàlla wax ne inna alladina amanu wa amilu saalih fa man kaana yarju liqaa rabbi falyamal amalan saalihan amalu saalih mooy jëf joo xam ne nii kenn poliyewu ko ci dara yàllay kese kese moo tax defoo ko ngir bëgg a dem àjjana defoo ko ngir ragal safara defoo ko ngir am daraja defoo ko ngir am kashfu defoo ko ngir am wilaaye mais yàllay kese kese kese yonent bi nee na Cheikh na Tiyaani jaamu yàlla googu day dem directement ndax loolu mooy aafiya ci àdduna ndax yeneen ci moo ne woon boo leen di ñaan yàlla ñaan leen ko afu wala aafiya njëggal ak jàmm jàmm nag dëgg-dëgg mooy jaamu yàlla rafleel jaamu yàlla gi lu dul yàlla rek moom nga ci jublu beneen bi ko gën a wàcc nag mooy dëgg la mu ngi jaamu yàlla mais bu sañoon yegg ci yàlla moo xam nag day am xam-xam wala secret wala euh, martaba wala yu mel noonu loolu boo ko yéenee ci sa jaamu yàlla day tëju ndax nee na lumière jaamu yàlla bi yonent bi nee na bu demee ba wàcc ci jëmm ji maanaam bunt bi mu waroon a dugg ci xolam day fekk ñu tëj ko ndax waa ji mu ngi jaamu yàlla dëgg la mais nee na wëli la bëgg doon wala wilaay wala nangam est-ce que loolu mu yéene ci xol bi yàlla ëppul loolu comme mbokkaale na dara ak yàlla nag te yàlla neen fa yaamal amalan saalihan dañuy jàppale li mu def du amalu saalix bu ko defee jëf ji day delluwaat asamaan moom jëf ji nag di wax ak borom ne que malheureusement bëggoon nañu dugg mais ñun dañ ñoo tere ñu dugg ci xol boo xam ne ku dul yàlla dafa ne kon lan la bëgg a jàngale moo di ndekkete looy def na yàlla tax booy jël werd na yàlla tax booy laazim na yàlla tax tariqa tijaan nag defe naa loolu rek la mooy yàlla ju dara raxul di Seydi Haj Maalik doon wax naan Malick de xaw ma lu mu amul waaye yàlla ju dara raxul Malick am na ko yàlla ju dara raxul jooju nag mooy tax nga am yàlla yonent bi nag di tëj ne waxal sama xarit bi moom Ahmada Tijaani ne nag nekk secret yi ma jàngal mu ngi ci alquranul karim wax na dëgg ndax fa man kaana yarju liqaa rabbi falyamal amalan saalihan wala yushriku bi ibadati rabbihi ahadan mu ne kon nekk na ci sonn bu muy faral di def ay requête pour jaamu yàlla nekk bu dee day sonn na sonn ci euh, yar bakkanam ba nga xam ne du bëggati kudul yàlla gannaaw Cheikhu Tijaan nag la ñuy recadrer nii massa yow mi nga xam ne nii nee nga bem nga Cheikhu Tijaan yi dafa am sëriñ sëriñam moo koy recadrer nii muy yonent bi ne ko bu mu def mukk mukk dara lu dul yàlla tax nee ko lu muy xër lu muy xër énergie bu muy ut na dajale énergie yooyu te mooy jaamo yàlla te yàlla rek rek tax defe naa ñun suñu énergie du lool de da ngay gis ku gàddu sàkk way ndara bu kenn xamul ne damay wër euh, secret fan ngay wëre ji nee na bis boo xoojee sa jaamu yàlla googu boo ko raxee ak leneen lu dul yàlla mu ne ko huwa të xiirul lil fatxi dafay yeexal fatxu bari ne ku naa tur wi maa ngi koy weer rek quarante mais man daal gisaguma dara doo gis dara parce que da danga da nga polier euh, tabaarakallahu tur wi moo tax yonent bi ne ko bu mu polier mukk yéeneem Euh, bu mu pëlie muk jaamu yàllam nee ko loolu dafay attardel fatxu nee ko loolu day attardel fatxu nekk ko dafay attardel fatxu trois fois ne ko bu mu pëlie yéeneem ci jaamu yàlla parce que loolu day gàllankoor fatxu day gàllankoor fatxu day gàllankoor fatxu trois fois te Cheikh na Tiyaani yi mi mu wax kat mooy xut bu zamaan bi ci jamono jooju mas ñun ñi nga xam ne ni xëyaguñu kon yàlla yàlla may ñu tabaarakallahu ñu tënku ci boobu euh, pas-pas te mooy di jaamu yàlla te yàlla rek tax sëriñ bi nag pour tënk mu ngi doog a dugg nag daanaka ci tariqa tijaaniya xam naa di wane ngëneelu tariqam bu mu tax nag nga foog ne dafa favoriser tariqa tijaaniya ci yeneen tariqa yi waaye dafa bëgg jàngal la rek lan moo tax tariqa tijaaniya joxewul ay xalwa joxewul ay tour yu ñuy nangam lu dul daal laazim wasifa charte yëpp di dellu ci sharia ak alquran ak sunna daf la bëgg a jàngal ne loolu moo doon cosaan te gëm nañ ko boo gisee ñiy dunde sunna ñëpp ñu ci bari jël werdu tijaan la ñuy mujje or que yeneen système yi duñ ci xaj parce que doo mën doo ko utal cëslaay ci sunna doonte weddiw ñu ñooñu waaye tariqa tijaan daal tariqa bu lucide la bu tegu ci alquran la ak sunna bu neex a nangu la bu neex gëm la moo tax Cheikh Omar ne doonu tariqa boo xam ne ay kiimaan moo fi nekk te d'ailleurs li ko confirmé mooy Cheikh Omar ku jàng histoire am di nga yëg ni ku bari woon lu yàlla feeñal ci loxoom ay miracle la hmm? mais téere bii di nga ko déglu ba mu jeex doo ko fi dégg mu wax ko ñun ñoo koy waxal waaye moom du ko tudd nga gis ne ko tariqa bi dimension dépassé na ay karaama ak ay kéemaan euh, kon nag loolu je pense que grandeur bu mag la jaadu na nag ñun jeunesse bi wala tabarakallah génération yii di ñëw ñu xam ne daal tariqa tijaani yi ëpp na ñun niñ ko gisee ci ay kéemaan ak naw yu mel noonu yal na yàlla fayal ñu cheikh alxaaji omarul fuuti bi maxdi fadli wa juudihi ci xolam bu yaatu bi ak pas-pasam wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu